Ah. yaa ngi wax Kalandoo ci Aliou Kalandoo lan moom. ay jeex mu day daanu day daanu day daanu. day daanu Fallou Kalando daan na Rambo Fallou Kalando daan na Rambo eh combat ba gaaw na Fallou Kalando Rambo oh daanu na. mais combat bi dafa gaaw de. waaw combat bi ni ma ko bëree moom xam nga mag la day day bañ ma toroxal ko moo tax arbitre bi sëf la rek mu jàpp sama loxo ma dugal ko ku xëcc ko. delloo ko mu toog. kon dugal ku jot na fi am. naa ko ku waaw dafa gaaw nag man sama affaire dafa gaaw dama ko dugal ku mu ñëw rek ma delloo ko. li ma doon wax naan ma mole paal ak mole xale. dafa lëkkaloo dafa ci grand combat yi war a bëreel. man nii ngaa nii. nii ni ma def kii noonu laa leen def incha allah rabbi ci kàttanu yàlla di gërëm Mbaye Difoncé Mbaye aw ma fayam. kan Mbaye Difoncé ma la. barke alquranu karim damaa fek ma woo ba ma ñëw ma ñëw Difoncé mu yëkkati xaalis bu bari jox ma ko ni ma fiis demal aw ma fayam maa ngi gërëm bu baax mbay di gërëm waa Tivaouane di gërëm ñëpp di Mbaye Kumba Gaye waa parcelle ñëpp ku ma gay laa may victoire bi Serigne Nino borom Lazio gisoo moom nii moom ko solol nii maa ngi gërëm di ko sant bëggee ñëpp di ko gërëm waa kër Cheikh Modou bi Gueye yëpp waaw di woo yeneen gars yi di woo yeneen gars yi dama doon barkeelu si nag ñëw naa nañ yeneen gars yi ñëw ku ñëw mo jox la sat kii rek barkeelu kon baax